dina baax ñu rappeler background xeex bi parce que guerre bi diggante États-Unis la ak Iran maanaam diggante ay puissance yi xeex lan Iran du puissance bi mais dafa mel ne Chine moo nekk ci kaw ak Russie euh, la euh, la Iran di def daf leen a intéressé euh, États-Unis la Israël di def daf koy intéressé mais benn pàcc ci états la voilà léegi nag il faut ñu delluwaat ci avant 7 octobre avant 7 octobre Israël dafa amoon jàmm ci gox bi waaw napp ñëpp bañ nar a fàtte sax li nga xam ne moom moo di li ñuy tuddee la cause palestinienne maanaam palestiniens yi dañoo demoon ba yëg ne wala boog sax les Gazaouis dañoo demoon ba yëg ne ñoom lee ñu fàtte leen parce que Israël politique bi mu doon def da doon fexe sax dugal Arabie Saoudite parce que allié bi ñu bëggoon États-Unis dafa bëggoon ñu jël Arabie Saoudite parce que Arabie Saoudite dafa am doole ak li ko wër fexe ba dugal leen ci li ñuy tuddee accord abrahamique muy ñu former benn diine joo xam ne kenn dootul euh, ŋàññi sa morom kenn dootul wax sa morom dara ñu nekk benn mu def mu def leen allié contre nag Iran parce que jàpp ne Iran mi la def dafa dafa nekk ci loo xam ne dafay jàppale Chine hmm, di jàppale Russie di jàppale ñeneen ak ñeneen léeg ñu ne suñ taxawul ci Iran mi boo moytuwul dinañu toroxal ak suñ allier yooyu parce que nag suñ allier yi dañoo am importance attention ci ñi nga xam ne dañuy wax naan Israël dafa am importance ci États-Unis États-Unis Arabie Saoudite moo ko gënal Israël waaw kooku maa la ko wax arab euh, États-Unis Arabie Saoudite moo ko gënal téeméeri Israël léegi nag lan mooy différence bi foofu mooy euh, comme ñoom ñoo ngi doon dund ci jàmm foofu laa bëgg a ñëw ba pare sax def ay accord abrahamique ñu koy jéem a defal benn super médiatisation pour que nit ñi dugg ci diine jooju bu ko defee ñu daal di mel na lu seel l'islam l'islam daal di kii mais ñoom dañu gis ne lislaam dafa dafa dëgër bopp te loolu ñu ko gis mooy benn parti ci américain yi nga xamante ne l'islam daf leen a neexul daf leen a soof te ñooñu ñooy les square mooy ñi nga xam ne euh, surtout nag ñi nga xamante ne ñooy les christianistes blancs ñi nga xam ne dañu jàpp ne diine christianisme ab blanc rek moo ko war a gëm ab noir waru koo gëm keneen ku dul blanc sa yoon nekkul ci diine christianisme ñoom noonu lañ gisee mooy kulunkàkk yooyu ngay gis mooy seen euh, mouvement yu bon yooyu nga xam ne dañoo raciste mooy ñi duggoon ci mooy ñi duggoon ci euh, ci fi nga xamante ne moom moo di Sénat bi États-Unis euh, nar ko nar nar faa indi ay jafe-jafe mooy bi ne Donald Trump dafay wàcc mooy mouvement yooyu nga gis ñuy mouvement raciste yu bon yooyu nga xam ne ñooy defal Donald Trump ay promotion naan dañ koy jéem a ñu bari gëmuñu yooyu voilà c'est juste pour bëgg too victimiser pour mu demaat ci ko parce que Donald Trump moom euh, lu wax dala koy defal maanaam même su dee lu baaxul la sax da koy jéem def parce que Donald Trump du ab président bu am xel noonu trop parce que ñàkk xel mënul paase nga fekk loo xam ne problème bu àdduna bi yëpp yow nga jël sa ambassade dem def ko euh, fi nga xamante ne moom moo di euh, Jérusalem ci euh, ci Quds pour jàppale les les israéliens parce que tout simplement yow yaa ko waxoon waaw bu ko defee moom dañ ko manipuler par ay lobby yu nga xamante ne lobby yu am doole lañ waaw léegi nag. Euh, ci yooyu lañ nekkoon di ko jéem a réaliser Donald Trump réaliser ci lu bëri mais Joe Biden mi bi mu ñëwee dafa ñëw ubbiwaat beneen front muy xeexu euh, xeex bi nga xamante ne moom moo di xeexu Ukraine xeex boobu nag daf leen indi jafe-jafe ba pare moom it ci diggante bi dafay màggat xamatul dara voilà euh, xamatul sax bu taxawee gauche la taxawee wala droite wala voilà loolu indi ay problème yu rëy rëy mais li am solo ba am solo rek mooy. Euh, situation yi doon yi mu doon dund moom Israël situation yu baax la parce que fekk na printemps arab bi xaw nañ koo rey tuuti def contre révolution ba mel ne révolution mosul am Égypte mi dend ak Israël tamit fexe nañ ba indi fa suqi gu mel ne Sisi yi nga xam ne moom du jéemul dara waaw jéemul dara dara dara ku yaafus la ku génn ci gem bi la nga xam ne daanaka amul sax lu muy def ci euh, Gaza pour pourtant moom moo dend ak ñoom. rey nañ Mursi nga xam ne Mursi euh, léegi dèjà ay yëfam jeex na rey doomam encore voilà euh, léegi nag ñoom ñu jàpp ne dañoo war a taxaw seen grande Israël li ñuy wax the the great Israel euh, loolu ci lañ nekkoon di dem di ko def ndànk-ndànk mais buñ dellu siwaatee ba ci 2005 xam nga ne 2005 Ariel Sharon fexoon na ba jëlee israéliens yi nekkoon ci biir bande Gaza bante Gaza foofu ñuy ñuy bombardé tey ay Israël dëkkoon nañ fa. mais dañoo dem ba mënatuñu gérer loolu après euh, Sharon daal di génne israéliens yi nekkoon foofu daal leen di indiwaat ci biir euh, fi satellites yi nekk tey mooy okki ñi occupé teeru jàmmoor ñu bàyyi leen foofu parce que dañoo dem ba mënatuñoo composé ak palestiniens yi foofu ñu ber leen booba Sharon Sharon mu ku coupable la même li Netanyahu di mën sax Sharon mën na lu ko raw mais au moins Sharon amoon na xelu moom am na nu muy génnee problème mu Sharon ak Netanyahu seen différence ñoom ñaar Sharon buy dem xam na su demee naka lay génnaatee mais Netanyahu buy dem du xam nu muy génne looloo waral bi mu duggee tey ci guerre bi nga xam ne moom mooy 7 octobre bi nga xam ne moom li mu mës a xam mooy palestinien da leen a war a rey ñu éliminer leen jeexal leen benn yoon sànni leen ci géej gi comme ni ñu koy waxee loolu mu mosu cee réussir te du ci mën a réussir. te loolu rek la mën a am nee na pour gagner guerre bi donc palestiniens yëpp mënoo leen a rey parce que adduna bi duñ la ci seetaan voilà tathirul irqi bi ñuy wax fexe ba nga xamante ne kenn dootul dox foofu wala nga def benn système apartheid mais apartheid nañ ko laaj maamam bi nga xam ne moo ko jàppal ay mbagam maamam ji ko jàppal mbagam di ko jox ay doole di ko jàppale te dinaa ñëw ci loolu missile yi ñuy daaneel ñu yaakaar ne Israël moo koy daaneel Israël daaneel ko Arabie euh, États-Unis moom moo koy daaneel. bu dee missile antiballistique yi am doole yooyu euh, américains yi ñoom ñoo nekk ci géej gi di daaneel yooyu mais du du waa Israël Israël amuñu boobu doole. alors su ko defee euh, dañoo dem a dem ba nga xamante ne palestiniens yi commencé ñu am doole commencé am arme commencé am lu bari luñ amul woon fexe ba nga xamante ne léegi dañ leen a defal benn prison à ciel euh, ouvert ñu nekk foofu moom la ñuy tuddee tey bande de Gaza. ñoom ñëpp ñu nekk foofu di dund ay situation yu metti nag situation yu metti yooyu ñu dund nag moo tax ñu révolté wu daal di def li nga xamante ne moom moo di euh, li nga xamante ne moom moo di 7 euh, octobre ñooñu li ñuy dund dafa metti ku demul rek mënoo koo xam ñooñu mënuñoo mënuñoo gañee dara cest dire ñoom Israël ñoo leen teg système boobu pour bëgg leen a dàq ban jeex foofu parce que dañoo soxla foofu loolu rek mooy seen itte allo salaamaaleykum waaw dama bëggoon a tënk ci guerre bi rek waa guerre bi nga xamante ne moo dox diggante Israël Palestine ci waxtu wi ñuy toll ñu bëri dañ naan Israël mi ngi sampaat guerre jëmaat Liban euh, pare na ci ñi nga xam ne ñoo di le euh, bandes de Gaza les Gazaouis euh, xeex baa ngi gën a yaatu nangam nangam Israël gagné na nangam donc li ma bëgg a wax foofu mooy. dama bëgg a confirmer ne Israël dafa perte xeex bi moom lan gagné loolu laa bëgg a confirmer waaw sans exagération li may wax du exagération loolu États-Unis ñoom ñoo ko njëkk a xam parce que ñu bari li ñu xamul ci secret guerre Israël Israël amul matériel bu mën a jàmmaarloog ñi ci waa gox bi parce que ñi ci gox bi yépp buñ takkoo du fanaan mais Israël gàllaaj bi muy jéem wut mooy leader yi nekk ci yi ñu ko wër ñépp jàppe na ne moom moo yor seen sécurité te ñoo ñooñu États-Unis lan yaakaar mu yor seen sécurité looloo tax muy bajantu ci kaw ñeneen ñi nga xam ne dañoo jàppe ne bokkuñu ci système boobu ci loolu lay profité mais Israël amul doole ju mën a jàmmaarloog sax waa Gaza masuma lak nag naan day jàmmaarloo ay Iran ak yu mel noonu ak i Hezbollah euh, Hezbollah bi nga xam ne rey rey na seen leader bi loolu euh, mën nañ wax ne rey na ku am importance ci ñoom mais euh, ñoom montewaat na beneen bopp maanaam Hezbollah ba léegi mi ngi fi mi ngi koy armée mi ngi ak lépp di xeex donc daanaka dem ak ki nga xam ne mooy na solo la métti na ñële mais loolu yàqul dara ci système bi ni mu war a doxee waaw parce que am na ñeneen ñu nekkoon ci biir di doxal kon Israël pour l'instant nii dafay jànkoonteeg ay problèmes yu baree baree baree bari xam nga. Euh, léeg-léeg sax nga mën a dal ci kaw Iran yeexaay beeg ni muy fay yoog nangam Iran dafa nekk ñoo xamante ne dañoo am patience ci côté boobu dañoo am patience ci côté bu ñuy def benn affaire dañuy jël seen temps loolu moom dañ ca am am patience loolu ku yàgg ci ñoom xamal leen ko euh, surtout seen bombe nucléaire yi ñuy jéem a defar bu yàgg ba léegi ñu ngi ci te léegi ñu pare ci waaw buñ ci pareetul tamit li ci des bariwul. te loolu bis bu ko amee euh, Israël dootul dootul am jàmm moo tax Israël bëgg koo songu xeex waaw koo songu xeex waaye ki déclenché mbir mi yëpp waa bande de Gaza la xam nga lu tax ma ne waa bande de Gaza ñoo gañe waa bande de Gaza ci 7 octobre bi dañoo dem ba wane ne Israël ndeke li muy woote lépp mënu koo ndekete parce que Israël dafa yàpp ne woon guerre bi une semaine lay doon ger bi dem na un an. te pour l'instant nii waa bande de Gaza ñi ngi waat ci seen souterrain yi di gën a defaraat arme di gën a préparer waat loolu c'est très important parce que ñoom guerre bi dañ ko préparer woon depuis onze ans yàgg na xam na ne Israël song ko du yombee noonu ñoom fi ñu toll nii mën nañoo xeex Israël lu ëpp dix ans pour l'instant nii ñoom pare nañ pour loolu surtout Sinwar bi nga xam ne ci ñoom la nekkoon da leen a xam xam na ne Israël. jërut ngay négocier ak ñoom parce que ay terroriste lañ ñu la wax waxuñu dëgg li nga mën a def ak ñoom rek mooy di reyante ak ñoom fexeel ba buñ am jàmm loolu moom mooy bii bi nga xam ne moom la Sinoir am parce que xam nañ ne lu ñuy wax ba guerre bi arrêté wallaay tey ñu dee Israël moom bu guerre bi arrêté rek moom moom mooy moom se fini baay baay te ci yoon boobu la nekk léegi nag lan moo tax. waa bande de Gaza ñoom ñoo gañe parce que bande de Gaza dañoo feeñal ne Israël dooleem fi muy jógee ndekete benn parti la ci états dem nañ ba 7 euh, octobre bi wane na ne ndekete ñaari états moo am ñaari États-Unis bi nga xamante ne ay lobby ñoo leen dugg di utiliser seen alal ak seeni taxes di rey ay nit te beneen États-Unis bi comprendre ko woon léegi nag déjà beneen états bi da koo comprendre ci guerre bi parce que guerre bi bi mu ñëwee dafa indiwaale lu bees loo xamante ni mosu koo indi xam nga bu njëkk Israël da daan bombarder rek di rey fii ba mu nekk ko une semaine après mu dem toog xeex yooyu la doon xeex mais cet fois si ñii avant guerre bi di dem dañoo dem njëkk ko ci li ñuy tuddee narrative li ñuy wax ak sard sard yetu Israël mooy naration de guerre yi Israël di def mooy li muy njëkk a def dalay fenal day dem ci média yi di la fenal di la fenal ba àdduna bi yéeg na yow yaa ko tooñ mu dem di la bombarder ak di rey say nit lim ci jublu mooy rey xale yu rey jigéen ñi rey ñëpp pour wàññi wàññi leen démographiquement mais bii yoon euh, ñi nga xamante ne ñooy waa Gaza dañ koo jekku dañoo tëb rek attaqué leen dugg seen camp militaire yi jël seen plan de guerre yi am solo yéeg lépp jàpp ci ñoom deux cent quarante otages ba ci mbokkum Binyamin Netanyahu doomam sax dañ ko jël rey ko doomu ministre de la defence bu jigéen jànq xale bu ndaw jànq la nga xamante ne ay 19 ans lay am mi ngi seeni loxo ñu ci gën a bëri ñooñu ñu tey nag ba pare nag yabal seeni nit Europe États-Unis partout ñuy làkk anglais partout naar yi xam nga ñu bëri dañoo jàng anglais léegi ay université Harvard la ñuy génnee ñoom ñëpp commencé expliquer fen yi Israël di fen ci télévision yeeg rajo yi guerre bi dafa tàmbali rek ñu commencé sax yemuñu ci loolu mais Israël ordre yi muy joxe ne su ngeen demee ci rajo yi télévision yi nii ngeen di waxee dañoo dem ba découvrir système boobu di ko expliquer ci plateau yi léegi nag Europe di ko commencé gis France di ko gis Allemagne di ko gis Espagne di ko gis états di ko gis nag États-Unis nag bu ñu ko gisee nag ci leen gën a mer parce que États-Unis daan ne ñun ndekete suñ taxes yi ñuy fay ñun ñun américains yi moom la ñuy jël di ko jox Israël muy rey ay bébé léegi Hamas ba nga xamante ne. bébé yi ñuy rey da koy filmer jox ko Al Jazeera Al Jazeera génne ko ñëpp di ko seetaan loolu mooy li bees ci geer bi loolu moom moo tax àdduna bi yëpp jóg mer léegi nag Israël daal di ñàkk réputation bi mu amoon avant 7 octobre loolu daf cee mer mer mu méttee métti surtout lobby yi nga xamante ne ñoo nekk États-Unis dañ cee mer mer bu nga xamante ne foo ko takk passé na ko parce que loolu daf leen a discrédité euh, dafa dem ba nga xamante ne seen seen crédibilité da dañ ko mettre en cause jaratun dara daal ci àdduna bi laa bëgg wax loolu benn beneen bi ci tege ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ay jeunes américain am na ñuy gisee Israël jàpp ne Israël dañ ko war a jàppale ñooñu ñoo révolté wu ci podcast yi boo dégloo podcast yi en anglais li ngay dégg mooy mais Israël mii moom kan la yab xanaa moom du ab simple allié kese comme ni ko Arabie Saoudite nekkee comme ni ko Iran nekkee keneen ak keneen. léegi ñoom daal lan lañ bëgg dama lay nettali xuloo bi américains yi di xuloo pour l'instant yi nee na ay nit ñoo ñëw suñu dëkk bi fii ñëw bëgg ñoo imposer Israël bi nga ne amaluñu benn njëriñ ci dëkk bi tax na ba suñu université yi sax mënatuñoo jàng suñu université dafa mel ne ay boddi compte ci wàllu xeet dafa am te juif boo gis sax danga koy commencé xoolaat beneen bët yi parce que ay tooñkat lañu dada dañoo mën a fen ci tiktok bi la ñuy nekk di wax lu leen neex te li ñuy wax du dëgg bëgg leen gëmloo naan ñi ay nit yu tardé lañ da leen a war a rey dañoo raciste dañoo nangam ndekete li ñuy wax dara du ci dëgg loolu américains yi dem nañ ba découvrir ko léegi nag américains li ñuy naqarlu mooy seen xaalisu taxe yi ñuy fay pourquoi ñu di ko jël di ko joxe Israël mu di ci rey ay nit ba pare ñu di leen jàngal ak ak yelleefu doomu aadama ci li nga xamante ne moo di dans les universités loolu moo leen naqari pour l'instant léegi nag loolu dafa mujjee indi benn di leen bu rëy ci biir États-Unis rawatina nag bi nga xamante ne Benjamin Netanyahu dafa dem foofu dem ci congrès bi di wax ak ñoom mel ne moo leen moom waaw naa leen dañuy attaquer guerre dañuy nangam parce que rey na ban reyee Hassan Nasrallah yaakaar ne loolu xam nga ñoom dañoo bëgg ay affaire wu xumbal ci wàllu kii di wane naan gañe nañ gañe nañ far ñu fekkaat leen fa ak ay bomb raser leen xëy na sax bombardement yooyu lu ñu organiser la dëgg la maanaam euh, Iran buy dóor Iran balaa muy dóor dafa am ñu nga xamante ne ay médiateurs lañ entre les Iraniens ak Américains dañuy waxtaan parce que pour l'instant nii Benyamin Netanyahu dafa bëgg jël guerre bi escalade ko maanaam gën a yëkkati dimension xeex bi te États-Unis loolu Iran tamit bëggu ko ci cadre boobu nag la Iran ak états di waxtaane moo tax Iran bu yëkkatee ay bomb war koo dóor lii daaneel bomb yi ñu bëri dañoo yaakaar ne Israël la du Israël mooy daaneel bomb yi États-Unis bi nga xamante ne moom moo bato bateau Méditerranée bateau bi nga xamante ne moom moo nekk moom mooy yaakaar naa numéro 5 bi te muy nekk ci Méditerranée bi boobu moom mooy bato militaire bi wàccee missile balistique yi mais dañuy dëppoo fu ñu koy dóor danaan ko bu ko dóor foo xam ne nit ñi dañ faa bari mais man ngaa xool système bi nga xam ne mooy seen système militaire ci xeex yi loolu règlement de guerre la bu ko defee Iran daal di respecté loolu dóor fa bomb ya moom la ko ñenn di ñaawale naan ko yow da ngaa dem tàggoo ba pare dóoru dóor mais lu ñuy waxtaanee parce que bëgguñu guerre bi gën a kawe mais de toutes les euh, dóor nañ leen ba nga xamante ne Israël amatul jàmm te lim gën a ragal mooy nga tiital ko. loolu moom mooy li nga xam ne mënu ko accepter moom parce que ñëpp xam nañ ne guerre du régler dara lépp politique moo koy régler politique kese ci nga mën a régler mais guerre moom mënul régler dara dara ñëpp xam nañ loolu mais léegi li ñu mën li liñ liñ dànd mooy nañ fexe ba Israël bu amati jàmm Israël léegi lu ëpp un million liggéeykat jóge nañ Israël daw quatre-vingt-quinze pour cent ci tourisme Israël taxaw na Israël daanaka dëkk bu amatul dara la. amatuñu dara ndax ay guerre ger yu dul dul daw léegi nag ñoom Iran noonu lañ koy jàppee fexe ba tiital ko nga ne dëkk bi kenn du fa amati xemmem teef pour dem fa. Euh, ni ki noonu tamit euh, ñii di waa bande de Gaza tamit noonu la ñuy def bu ne nii ñu daal di dóor ay bomb jëmee ko ci capital bi dóor voilà su ko defee euh, ñoom États-Unis ñoom ñoo njëkk a dénigré ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. ba pare fi mu toll nii coow li nekk États-Unis parce que boo gisee may cité États-Unis mooy guerre bi yëpp États-Unis la États-Unis bu téyetul ci loxo Israël Israël day daanu Israël bu amatul ku ko jàppale ku mel ne États-Unis moom dafay fuuti parce que nag band de Gaza wan nañu ne états ñaar la wax naa ko fi sànq mooy états bi nga xam ne ay zioniste lañ zioniste nag mooy ñoo xamante ne gëmuñu dara mooy liñ bëgg rek mooy seen système na dox ab xalaat la rek xalaat boo xam ne mën na mën naa rey ay millions yi doomu aadama zioniste yooyu nag boo dee xool seen cosaan ay chrétiens yi nga xamante ne. surtout les protestants ñoom ñoo fexe ba samp ñi nga xam ne ñooy Israël Israël xalaat bi nga xamante ne mooy wàllu zionisme du ñoom ñoo ko génnee du juif yi juif yi génnewuñ ko am na juif yoo xam ne dañoo contre zionisme moo tax zionisme ak juif bokkuñu il faut ñu def très attention xëy na origine yi zionisme ay ay ay ay juif ñi ngi ci biir mais du juif yëpp ay chrétiens ngi ci biir même ay musulmans ñi ngi ci biir. ñooñu moom sax boo dee xool ñooñu ñoo tax sax alxuraan di wax maanaam xalaat bi sax moo gën a tax alxuraan di wax mais pas nekk gi nekk juif nga xamante ne dañoo gëm ne il faut deret yu bari tuuru ci Jérusalem bu ko defee al euh, almasi daal di wàcc ñu rey seen nag yooyu mooy nag yooyu al euh, nag yooyu ñuy wax mooy seen nag yu rouge yooyu parce que nag. parti boobu ci information yi duñ ko génne mais parti bu am doole ci information boo gisee ñuy esclader guerre bi guerre bi di gën a rëy dañoo jàpp ne bu deret di gënee bari almasi day wàcc loolu Netanyahu des fois day jël ay yenn paragraphe ci tawraat di ko waxee wala muy jël expression tawraat di ko waxee loolu gisuma ñu koy cité lu bari mais ñoom loolu dañ ko boole ci biir guerre bi dañoo jàpp ne guerre bi foog deret ju bari tuuru pour que almasi wàcc almasiix bu wàccee grande Israël dafay am lu ñuy wax àjjana parce que ñoom dañu gëm ne àjjana sur terre bii la am ci terre bii nii du àjjana yowal xiyaam loolu nag gëm-gëm yu dof la yu nga xamante ne euh, ñun ñu njariñ mais mi ngi lor jullit ñi mi ngi lor ñu bëri mi ngi lor les musulmans di lor les chrétiens ak yenn juif yi sax mu ngi leen di lor alors waaw su ko defee loolu dem nañ ba découvrir ko xam ne ñoom ndeketi ci base boobu la ñuy yëngatoo. beneen bi Israël xat na kenn bëggatu ko ñu bëri dañ ko sanctionné économiquement seen directeurs yi amatuñu jàmm fenn seen produit yi kenn jëndatu ko léegi nag moom da doon jéem a korkoral di xool nu muy tëjee Hamas ba du jóg Hamas fexe na ba tijji ay yeneen front parce que benn euh, les Gazaouis ñi ngi ci côté euh, noor bi di xeex ba pare ci beneen côté bële Hezbollah ubbiwaat na fa beneen front di bombarder. fi ñu toll nii daw làq israéliens yi ñu ngi tolloon ci soixante dix mille personnes mais léegi egg nañ ci cinq personnes ay daw làq <laughs> ci ñoo xam ne dañoo jóge woon ci réew ñëw Israël pour làqatu si far mujjee nekk ay daw làqatu biir réew ma. ba pare xawsa yi léegi ñu ngi commencé xawsa yu nii ñu ngi commencé di dóor ay missile muy ñëw ba Israël kon front yi gën naa ubbeeku beneen bi ci teg nag te gën a dangereux mooy Iran bi ngi commencé di dugg ci geer bi ndànk-ndànk. ba pare waa Irak tamit aussi ñu ngi dugg ci geer bi kon moom ubbi na ay front yu bare bare bare bare bëri léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jariñu ci geer bi Chine la Chine moom xeexul économie gam mi ngi dox Afrique ñu ngi koy gën a bëgg ba pare golfe bi sax ñi ngi gën a bëgg siin léegi parce que xam na ne Chine bëgg na jàmm bëgg développement parce que nit ñi ku bëgg jàmm bëgg développement yow la ñuy bëgg Poutine tamit aussi mi ngi gën a développé di gën am xaalis di gën a développé léegi nag ñi nga xam ne ñoom la États-Unis dugal ci guerre bi ñu koy jàppale muy Europe ak euh, Allemagne ak ñooñu ñëpp ñi gën a walaakaan kon Israël gouvernants yi koy jàppale seeni société dañoo dem ba mere gouvernants yooyu parce que boo demee France ñoom li leen jaaxal mooy antisémitisme bi nga xamante ne moom la ñuy tudd ci télévision yi moom mooy booy seeni nopp loolu lañ mënatul accepter Allemagne tamit aussi noonu ni ki noonu tamit aussi Angleterre. benn minorité lañ rek bëgg ñëw rek imposer nit ñi loo xamante ne duñ ko def parce que xam na ne ñooñu ñoo yor gouvernance mondiale te gouvernance mondiale bi léegi euh, boo dee xool multipolaire bi moom moo ko sonal mënatul dem Chine taxaw ci seen kanam lépp luñ mënoon ci technologie Chine mën na lu ko raw ba pare di defar ba pare tamit aussi gën a xaritoog les les te Afrique mooy continent bi nga xamante ne moom la nit ñi gën a yaakaar kon Israël moom fi mu toll nii dañ koy bëgg conjuguer au passé li muy woote naan guerre bu mu gañe la loolu c'est pas vrai man ngaa rey ay nit mais doo gañe guerre loolu c'est deux choses ku ko weddi laajal Allemagne Allemagne mi yoroon lu dul lu dul jeex ci ay armes ah muy Reich bu Allemagne Hitler di rey di rey di rey ba yaakaar ne moo ci ne mais da leen a ba ba nga xam ne tek tekkeetuñu dara mujj sax amatuñu arme dañ leen a tere ñu am ay armes mujj ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon nekk ay militaire ñuy liggéey ci wàllu civil ba Allemagne commencé di développer ci côté industrie mais euh, dem nag ba am doole ci wàllu économie Europe waa loolu suñ ko njëkkee woon tey duñu ñu nekkaat puissance mondiale pour wax la yor ay bomb di dóor mënoo cee gañee dara dara dara loolu ay ennemi dong la lay indil te la cay toppaat ginnaaw bi mooy gën a metti mooy Israël dootul amati sax terre parce que li ñuy tuddee. li ñuy tuddee xàllu dawla tey nii mooy ñaari réew yëpp euh, euh, ñaari ñaari ñaari réew yëpp am état xam nga ne bande de Gaza bu amee état am aéroport euh, Israël dootul saqat dootul saqat te foofu lay gën a méttee ndax ñoom heure bu ñu génnee dinañ wuti arme yu gën a sophistiqué boo leen rayee ñu rey la kon ñi nga xamante ne dañoo toog yaakaar ne ñi ngi rey ay nit nii ñuy dem non non bande de Gaza trois millions lañ mënoo leen rey ban jeex. munoo loolu mënta nekk c'est impossible beneen bi ci tegee loolu àdduna bi duñ ko seetaan teg ci nag pour la première fois ñu yóbbu Israël ci tribunal pénal international waxul ne li muy def génocide la de mais nee na jàpp na ne li muy def mën na nekk génocide loolu lan moo ciy tege mooy Israël li muy def génocide la te loolu Afrique du Sud de Afrique ñoo ci impliqué wu pour la première fois pour yóbbu ko tribunal pénal international beneen bi ci tegee moom mooy les démocrates yi nga xam ne ñoo nekk États-Unis euh, démocrates yi à cinquante six pour cent dañu jàpp ne Israël li muy def génocide cinquante six pour cent xoolal loolu te ëpp na loolu cinquante six pour cent ci démocrates yi dañuy jàpp ne Israël li muy def génocide la est-ce que xam nga loolu lu tax mu am importance mooy ñooñu bu jëlee décision rek Israël yàqu mooy kenn dootu ko jox arme kenn dootu ko jox dara léegi nag daggite arme yi ñu koy jox nii nga xam ne ñemeetuñ koo jox ay arme muy dóor mais da naan ko nanga xool naka ngay def ba euh, bu la sànnee missile nga mën koo téye dañoo dem ba missile yi Israël yoroon mënatul yor dara mënatul téye benn missile Israël dafa mel ne euh, caax yi mbaal yu yàqu lu ñëw rek dugg ci biir. waaw léegi dañoo dem ba commencé yëg nañ ñoom ñi ngi en danger fi mu toll nii dañoo tiit boo gisee Israël sax boo gisee Benyamin Netanyahu bi ñu ko yëgalee ne Iran mi ngi <laughs> Hezbollah mi ngi dóor ci côté bi euh, feu yi mu yoroon loxo bi da doon loxo dafa tiit bi muy génn da doon daw këyit yi sax mënu koo téye bu baax ndax ni muy tremble ni muy loxo dañoo ragal a ragal ba nga xamante ne léegi nag fi mu toll nii fan lañ jëm. Iran mi ngi gën a di gën miin terrain bi di gën a xeex ay missile am di gën a dem parce que ñoom ñaar dañuy xeex euh, euh, Israël da koy propagande parce que moom moo dóor ambassade bu Iran bi nekk ci biir Syrie donte Iran kenn du ko faral foofu parce que ñoom dañoo rey lu baree bari ci waa Syrie yi def leen jëf ju ñaaw ñoom ak euh, Hezbollah ak yu mel na loolu kenn du ko fàtte jëf jooju ñu def foofu jëf ju ñaaw la ba nga fa tege mais boo gisee gaa yi jàppale gi ñuy jàppale léeg-léeg Iran. ak itam di ko di ko kañ ci li muy def dañ koo kañ rek parce que jëf ji mu jëf le sionistes moo tax mais du question dañoo ànd ci wàllu pas-pas loolu tamit il faut mu leer parce que loolu ñëpp xam nañ ko mais léeg ay nit di leen bokk ay situation jamono changé ju dox comme Chine ak Russie ñoom ñaar bokkuñu ni ñuy doxee mais sanction yi leen États-Unis sax teg tax nañu gën a xaritoo gën a ànd waaw parce que nit ñi moom ay intérêt lañ am en général mais li am solo ba am solo rek mooy Israël moom pour l'instant moom mi ngi ci li ñuy tuddee xaftaan bu amul ay loxo mbubb moom fi mu toll nii euh, moom balaa yàgg moom dootul mën a dootul mën a disereeti dara parce que li mu yàq ci wàllu politique ak diplomatie parce que loolu moo yor dëkk politique ak diplomatie ak économie bu baax yow sa économie fépp ci monde bi surtout waa asi buñ la bàyyee Asie ñëpp jëndatuñu produit Israël ay Pepsi. ay euh, yu bëree bëri kenn jëndatu ko ñooñu buñ la bàyyee lu bëri dafay yàq ci sa li nga xamante ne moom moo di sa économie buñ ci bàyyee nag ñi ngi la daan jàppale bu buñ demee bëgg ñaleen leen tooj di xeex ak yow muy américains yi kon yow yàq nga ba faaw kon Israël pour l'instant nii euh, xam naa ne disparition bi nga xam ne moom la ñuy wax boo moytuwul la ca des bareetul pour ñi yaakaar ne Israël dafa neutraliser ndangam nangam neutraliser wul kenn. Israël moo nar am problème te balaa yàgg dina disparaître. wal qalami wa ma yasturuun